You know Happy birthday to you. <laughs> <laughs>

di teg man. ah Aliou Sow la. waaw. bii nii nga may dooleel ma taal ma taal sondeel bi. baru. ay waay. bul fay rek tourneel tuuti rek. dama tiit. ñu ngi doog a gisee kay. am nga loolu ndey fa. jaay ñu ngi ñu ngi gisante. bilaay kii mooy sëriñ bi ma boole lool kii moo ma boole moom. teranga yaa ko yelloo. ma ne ku la ko lebal doo ko fàtte. lay lii la la teranga yaa ko yelloo. level-level kafazel Mam jara yow doo kii fàtte Demba ma ne ku fàtte Demba danga gore wul lay lay la la jara teranga yaa ko yella ay bilay ni ku la mu lebal moo tax ma ne teranga yaa ko yaa naa ku nekk xam Pape Diarra macha allah dañ ko présenté àdduna yëpp xam nañ ko dañ koy seetaan mu nekk ci tool allah di liggéey lu rafet ci li nga xam ne moo di aar bi Fall lañ lay bàyyi nga nuyoo tey. waaw on se maa ngi àdduna bi ñu képp koo xamante ni ñun li def neex na la rek. Mm-hmm. ñu ngi lay ñu ngi lay fekk fi nga toog defal la mm-hmm. mm-hmm. ñu fekk la ki nga xam ne ni mooy jaara jur anniversaire am tey eh, ba su juddoon tey ñu koy fête tey ngeen ànd liggéey ci aar bi liggéey bu mucc ay macha ñëpp xam ne ngeen ay ndaw tey boo ñu wax sa diggante jaara tey la nga wax. waaw ah, mbégte rek. présent ndax jaara moom mooy dafa wuyoo turam daal. waaw jaara. li ma mën a wax si moom tay su ma doon wax si moom tey amaana duñ fi duñ fi jugee. Mhm. lu nekk laa ngay wax. Mhm. man moom gasa gasa la ñuy dund. gasa gasa waaw man nekk lu nekk laa ngay wax mu nekk nit koo xamante ni amaana day dégg nekk si man ufit. Mhm. dañ koy wax lu nekk man aussi dañ ma lu nekk ma maanaam mooy li may wax rek jaar li tax ma bàyyi ko moom si moom lay jugee quoi. comprendre nga moom it tamit loolu lay wax kon yaakaar naa ne foofu noonu. jàmm rek moo koy am incha allah mhm. mooy li ma la wax rek jaara moom mhm. dëgg yàlla mhm. te te te dafa dégg daal waaw bu ñuy joué dañuy dañuy dañuy joué lu neex parce que li ñuy joué dafa naturel comprendre nga voilà li ma mën a wax moom bëri na tey boo ñu doon wax yéen ñaar euh, seen pour ñu ba tax ngeen euh, seq liggéey lan nga wax <laughs> c'est que bu demee liggéey la wala dañu leen boole wala waaw bis nga jugee wu ci dafa gay moo ñu oo <laughs> jàll ah. ma <laughs> <laughs> ñëw risque loolu dem sama loxo lu wóor de non fa lañ xamante nga teg lañ xamante ok waaw mais ñu gis nii li ngeen di joué macha allah sénégalais yi bàyyi nañ ci xel loolu du ma sénégalais mais àdduna ñu bëri bàyyi nañ ci xel macha allah tey euh, joué ak jaara yomb na wala yombul maanaam euh, di ngeen def séquence yu bëri souvent di ngeen mer ba ba ba bëgg a bàyyi tournage wala souvent affaire yooyu la ngeen di jàppante. non vraiment li ñuy jàppante xam nga lan la ñuy jàppante heure tournage dañu war a dem mu nekk bi di solo xam nga ma pare. ma daa bëgg sànqal waaw moom foofu la ñuy meree foofu laa koy meree. foofu laa koy jéppee. waaw mais parce que euh, à part la à part à part loolu moom. su ngeen demee tournage bi. waaw day joxe séquence dañ koy jox day joxe. day joxe waaw moom day joxe quoi arrêté. Mhm. te moom li muy def dafa naturel. su mhm. xolam lay jógee moo tax day dem su xolu Sénégalais. Mhm. oui. tey macha allah tey jour anniversaire am. ñu koy feete xaritam yi ngeen àndoon liggéey yéen ñaar ngeen dugg si fekk xaritam def surprise bi mm-hmm. yow euh, nan la la def parce que boo doon jaaral mm-hmm. ngeen continuer lan ngay def lan ngay def non bilaay ba nga koy plaisir quoi li mm-hmm. dafa neex li ma koy waree mu gën a jàppaat xarit yi bu leen jàppoon benn leen gën a jàppaat parce que bëgg nañ ko daal dama kontaan yëgoon naa ko nag yëgoon naa ko man ak yaama doon nañ doon nañ collaborer avant ñu maa ngi dem. moom xamul si woon dara ko bàyyi ci biir waaw. Mhm. lii dafa rëy quoi lii dafa rëy. Mhm. waaw koy ñaan mu gën leen a jàpp. Mhm. di leen ñaanal seen ànd bi mu gën a mu gën a sax. saytaan yow yàlla musal leen si saytaan yi voilà. Ah, tey lan ngay wax Sénégalais yi en tant que bon. mun naa la porteur de voix parce que ñëpp xam nañ ne sax nii dëkk bi tolluwaay bi yàqante bi ci internet bi te yéen doxu leen ci loolu yàqante bi gënante werante yàqante lu waxante lu bon sosante lu bon ci internet bi te en fait lan ngay wax ñu ngi def loolu bon loolu moom yaakaar naa ne ku koy def mooy li mu wax sànq rek mhm. da da du yaakaar euh, guddig bàmmeel premier jour bàmmeel premier jour bàmmeel donc boo koy coot rek am na lu bëri loo xamante ne boo ko def mhm. te amul benn chance loolu amul bénéfice doo si gagné dara mhm. yàq sa mbooloo nit doo si gagné dara fii toujours ne am na looy nëbbu boo ko kenn xam ko comprendre nga waaw loolu daal laa am sama amul amul chance quoi amul bénéfice doo ci gagné dara quoi jarul def. kontaan nga daal. kontaan sama dernier mooy xam nga moo ñu jàppalante rek. xam nga ñu ànd ñu wax leen ñu leen ñaanal. wax leen lu rafet moo gën. waaw jaaru nag nee ko moom la wax naa leeral moo la tax. mais waxal yow waxal yow. non man moom. waxal rek yaa ko tax. maa ko maa ko may coox. man may coox. <laughs> maa ko may coox. bul allah di la ñaanal xam nga seen fit bi fi ngeen koy séntu mu mu dem fu ko raw. xam waaw barke maam Serap Fall barke Serigne Fallou Rahman na daal amoo ragal kenn kenn nambante na rek <laughs> jaajëf man man man mënuma sax wax télé wala la première fois may wax télé c'est la première fois wax si moom rek dafa des jaara baax na yaatu na bëgg na ñëpp billaahi man mu aw ma fayam barki alxuraan aw ma fayam benn yoon maanaam jaara foo génn si mbedd mi baaxu jaaral la ñuy waxtaanee te liñ koy waxal nii dafa nekk loo xamante ne triche la. ah vraiment ah loolu jeex na ko waxal si moom la nekk vraiment man ma ko bëgg a waxal yëpp xajul sax fii nii vraiment ñu ngi koy ñaanal tawfeex ak tayseer li mu bëgg yëpp ci. àddinaam yàlla defal ko ko daal defal baax na bëgg ma ñàkk ki ñaan man yow fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo kenn du ma gis këram laa jarul ko ah, teewal ah, ah, rek teewal fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo mosuma dugg kër kenn te kenn du ma gis këram mais benn jaar laa mujjee xam mais yaa gën jaara sincère na. jaara sincère na jaara baax na jaara nit ku ñàkk ki ñaan la. elle sama façon. ma ne depuis ma xam ko lenn rek laay leen def sama àdduna mooy que. du ma ko yéex a xam yéex a xam du ma ko yéex a xam. laay réeku sama àdduna. nee naa la démb musuma ku mës a yor sama statut. musu amul kenn kuy kuy anniversaire muy sama yaay. ma dugal ko ma dugal ko statut mhm. mais yow laay dugal statut baax la lu rëy ndax man ragaluma li may def dëgg la ragaluma ma may def parce que man sama kër gee dañ ma faa respecté. Mhm. te li ma wax mooy am. Mhm. barki Serigne Saliou da ngaa baax yaa ma jaral ma dagg sama toog gee. ñëw toogal la fii. Mhm. ndax kenn amu ko ci man sama waa kër sax amuñu ko ci man. yaa baax nag yaa ñàkk ci yaa gore kay nag yow barki Serigne da ngaa baax. fii amul day sekk mu ngi nii fii laa juddoo fii laa yaroo. ma kër kenn. dew ma kër kenn fréquenté ma kër kenn foo ma fekk maa ngi sama kër toog. man bañ naa ko ba danga may woo sax du ma mais yow laa xamul nu ma lay def. jaara baax nga sincère nga. ñàkk nga ki ñaan. instant jawar bi xam nga sama jawar nga jawar kër. Koda. bonsoir. ma ne tey nag mënumaa ñàkk wax ku ma xam sax xam ne lii ko waaye kii xew la dafa sës si man di sama complice ñëw yof def ma nii baaxkat mënoon na fee ñëw ñu ko xeeb déedéet programme bu am waaye yof toog xaar tuddee ko ko teel a xëy guddee wàcc. xale yëpp jox ko bopp moo baax nag maam Diarra Diouf yow sa yaay dalaa ñaanal sa jour mu ñaanal la si téléphone ma koy dégg man yow rek laay topp yow rek yaay sama roy waa fii nawloo ma fi benn xale yow yaa ma jaral may ñëw sa kër fii xam nga ne ku ma ku la ku ma xam-xam ne 18 heures laay yow maa ngi sama kawlal bële foo ma woowee mën naaw ñëw parce que jaral nga mag sa xaalis si man say tera mënoon nga ne de na namul dara de mais defoo loolu am bokk nga man loo am bokk yéene nga lu ma teg sama tànk du noonu nga ne ma teggil ndayaa defeel ñuy wax nii kon yow rek laay topp ma dundal wéral nag yàlla nga ko féete yàlla nga am jëkkër ju baax ñu xewal la fi yof xewu rëy nag di nga xam ne amoo ay mbokk fee nga dëkk rek fii nga ëpp ay mbokk ndaxte fii te dëkk boo fi dëkkee baax nit ñi tamit def la mbokk waaw am nga fi baay am nga fi ndaay am nga fi ay mag tey fii ku fi ku ñu fi tooñoon tey damay tëdd sama li def nii waaye bu ma déggee ni maam jaar lañu laal damay jug yëkkataku sa kaw naaw lu ma mën naaw baaxkat bi dundal wéral yow rek laay topp seen góol bi yaa mën a kaptabal kay di daani <laughs> sama waay la jàmm ñal jaara busut wala man sa bi jaara jurujub